mënuñ baax baax beneen bi mooy mi ngi nii bu ñu waxoon jàkka yi ci Tiwaawan nan génne rajo yi yëpp rajo yëpp yi fi Ablaye Ndiaye ko def bu ah ñuy nodd rajo yëpp du du riir de ndax jàkka ju mokkatewul moo la rajo waa mu karole la te bu koy def da koy def li wajji hilaayil karim waaye ku def ngir yàlla yàlla yëkkati la nag ba ñëpp yëg ko kon nag ni ñuy def rek mooy bàyyi Ablaye mu indi kàddu ndax leen wax lépp neex na waaye li mu wax koy dàq. ah mbokk yi kon ñu bokk rek déglu Ablaye Ndiaye ne mi ngi naan wax mbooloo mi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ne mi ngi nuyu ñëpp ne di jiital ci nuyoo bi nag Mawlaay Abdoul Aziz Mbaye di ci teg Abdoul Aziz Aale Ndiaye di ci teg frère yi nga xam ni ñoom la fekk ci kër gi. lay Ndiaye sama turandoo ak sërëm yi toog wëli ñoom wëli Ndiaye ak ñëpp ak ñoom Baye ak Masata yam ñëpp ne yaayam Adja Khoudia Diop moom it ñu ngi koy nuyu ne di nuyu Abi Mbeng mii ñu fi fekk bu Serigne Babacar Sy ne nuyu imam Pape Diop sunu mbokk di suñu wëllëre bokk ne di nuyu ñi ni fi fekk ñëpp ne di sant vie kanit ci témoignage yi mu def léegi Ablaye ne dañu ñëwoon rek dox mbokk ñëw ndokkeel sa Mawlaay Abdoul Aziz Ndiaye ñëw félicité ko ñëw sant ko ci njàmbaaram ñëw ngir ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko aar ko ne loo man ren aziz ablaye ndiaay nee na yàlla nga mën déwén lu ko ne li nga def dafa rëy de ndax koo yéenewul doo ko defal loolu de ndax yàgg naa gàmmu nag yàgg naa jënd ay nagit ci gàmmu di ko joxe waaye bu demee ba yow Aziz Ndiaye nga am benn yërmande bii ci man yëkkati sa téléphone bopp woo ni ma Ablaye li nga gaay di jaayee nag fii ci Tiwaawan dafay cher wax ma lim bi nga bëgg ci ay nag ma jëndaaleel la ko ca daara nee na ma jox ko nag fëfeer ni ko yow jëfal lu la neex nee mu def ko ci defin bu rafet nee na defu la ko Aziz defee ndax bu nag yi ñëwoon ma ne ah Aziz daal man daal li ma doon xaar gisuma ko waaye nag yi danga nga leen a dàq ñu ñëw ma gëm ni man la bu ma demaloon sama bopp lii nga ma indil du ma ko mën a indil sama bopp kon loolu dafa rëy Aziz ci man lool ne te yemoo ci loolu nag keroog ci guddi dafa ànd ak kenn ñëw sama kër ay une heure du matin benn waay nee ñiy defar cocotier yi nekk sama buntu kër nee na moom moo defaral Aziz mii cocotier yi ci buntu këram mu ni ma waaye Ablaye cocotier yooyu boo ko defee sa buntu kër yow dina rafet de mooy cocotier yanu bàyyi léegi sama buntu kër kon loolu ku yéenewul doo ko defal loolu nag. ne dama ñëw rek pour sante Aziz pour ñaanal ko yàlla ndax limay dund man ci hadara Seydi Hadji malik gëm na ni lool rek la ci jaay di dund du dara sagal hadara rek taxaw hadara bi rek neena lool rek moy suñu mission neena wutu nu tour de wutu wutunu bës waye taxaw rek hadara Seydi Hadji malik xaw hadara bi rek nee nag amuñu lu dul xadara Seydil Hadji Malick te dañoo judd fekk way wayjur di ko taxawal nag kon ñun fii ñu taxaw day wane ni la mag ña nekke woon démb mooy dëgg ah ñun nag mission rek la ñuy àggale si mission boobu nag yàlla buñ ci yëg suñu bopp amin yaa rab yàlla nañu yàlla may kartan ak xéewal yu yaatu ba mu gën a yaatu waaye li ma mën a wax daal mooy Tiwaawan Aziz Ndiaye na xam ne ñëpp sant nañ la nee na Tijaan ku dul Tijaan sax sant na la ku dul taalibe sax sant na la kon Aziz Ndiaye Ablaye Ndiaye ngal gu ne yàlla na la yàlla taxaw nee li ñu boole nag nee nit ñi xamuñu ko de ndax sama waajur Baay ngal gu Ndiaye la woon ak sa waajur Baay Ala Ndiaye. nee maa ngi seere démb rek paale Njaay dama wax ak moom ñeenti fan lañ ci teg mu gëm abarza nee na wallahi azim nee na moom baale insisté na sax ba jaar ci ñang sàmb ni waxal Ablaye Njaay maa ngi koy woo te bi may woo nee na benn poste de santé bu bàyyi àll tabaxoon ci seen dëkk fii village bi neena ba mu boole maag ICP femme bi fa ne wax ma yéene bu bàyyi aale am ci poste de santé bi nee na te loolu Aziz ñun ñaar war nañ ko mën a àggale nag ndax jëfewul nag ndax fexe ba ñooñu fa nekk état bi reconnaître leen nag jël leen en charge nee na loolu rek moo doon sa yéene bàyyi nee na beneen bi pa aale la woon pa aadija ak sama waajur bàyyi ngaal ne sama taw papa bu jigen ñu jël ko may ko pa Adija mu am ci taw tuddé ko Baye Ala jay sa baay pa Adija jël taw bu jigen may ko sama mak Cheikh jay kon bokk gi Non rek la demee nit ñi nag mën nañoo bañ a xam lu ñu bokk rek la mëna a warul ndax nii la ñu ànde woon rafetal ko ba tey jiitu ji nee na ñu leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla yeesal yërmande ci ñoom yàlla na leen yàlla xaare aljanna Abdou Aziz sa frère daal ne mi ngi lay wax ni kontaan na ci yow bëgg na lool ci yow nee na yàlla yàggal teraanga ci sa loxo nee na yàlla boo jéem loo tële gàmmu eh, bisu gàmmu gi dama amoon yéene. woo El Hadj Mbengue. woo woo Pa Moussa. ni ko dafa am teraanga yu ma bëggoon. ni ko dafa am teraanga yu ma bëggoon. ngeen yóbbulal ma ko Aziz Ndiaye. nee na juste rek pour remercier la rek lañ ci jublu dama ne woon El Hadj dama commandé Aziz Ndiaye ay fruits. xam naa dina bëri ay gan nee na ma fay fii yeeg malheureusement ak bi bisu gàmmu gi ba bi érage bi ngi ñëwee ma ko érage nag dëgg-dëgg affaire bi dérangé na ma de yéene bi ma amoon daal lii dérangé na ma bi may ñëw nag ma naa def benn geste rek bu symbolique pour wan la sama xol set na ci yow mooy lii ma indi jege seen ma teraanga yi di ay teraanga di ay tusi nee xem naa ko de Aziz ndax yow mérito nga lu ëpp lii nee pour jox la ko rek mu nekk rek loo xam ni suñu diggante la man ak yow nee maa ngi sant ñëpp nee di gërëm El Hadj Mbengue Diop ak Pa Moussa ci seen taxawaay. ak seen rafetal ci suñu diggante ñun ñaar nee bi may ñëw nag maa ngi ànd ak sama rakku bopp Omar Diop ñu bokk ndey ak baay ànd ak sama ndijaay muy Mbay Sàmb Siise ànd ak sama jarbaat di Siidi Baara ànd ak Abdou Sall muy sama coordonnateur mouvement ànd ak Maam Taxa muy adjoint au maire ànd ak Baye Modou Gueye muy kenn ci ñun nee na bég nag fekk fi Abdou Aziz Mbaye ndax daaw jataay bii lañu amee woon ci sama kër lañ ko amee woon kon nal ñi ngi Ablaye Ndiaye ngaal gu ne ñi ngi santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekk ak at yu bari nee na di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin vraiment mon ne vraiment mom tay mom dama bege bege bege bege bege bege bege bege ba mi nuyu nuyu nuyu nuyu nuyu vraiment contentement bi ñu am. ndax contentement am bi def ci déplacement. wu ànd ak ñi mu àndal ñëpp ànd ak ñi mu àndal ñëpp. vraiment dañu kontaan nee na ci. man maa ko naroon def démb. nee na Ablaye li nga def tey maa ko naroon def démb. yàlla moo def waaye yàlla moo def yaram bi xawoon na am tuuti sutante rek nee na loolu rek moo tax gisoo ma waaye Ablaye moom ci gàttal pour ñëpp xam man ak Ablaye Ndiaye Ngalgou du ñu ñaar benn lañu. gënee nekk xale. nee ñun bi ñu gënee nekk xale. bu ñuy dégg Baye Ngalgu Ndiaye. bu ñuy dégg Baye Ngalgu Ndiaye. ak sam papa ak sam papa. dañoo yaakaaroon ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. wallahi al azim loolu lañ foogoon. ndax sam papa saa su nekk. ndax sam papa saa su nekk. bu daan dem Mboro. bu daan dem Mboro. faaw mu jaar kër faaw mu jaar Ngal. te dama daan ànd ak man sam bi ma nekkee xale. dama yaakaaroon daal bi ma nekkee xale dama yaakaaroon Baye Ngal ak Baye Aale ñoo bokk ndey ak baay. nee na ñu xawoon a nduroo nag xawoon a tolloo it xawoo nduróo nag li ñuy soloo nee na loolu moo taxoon ma yaakaar ne ñoo bokk ndey ak baay waaye daal nee na li mu mën a wax Ablaye Ndiaye mi Ablaye Ndiaye Ngalgou mi man gisuma ku ko gën a baax ci Tiwaawan gi Ablaye Ndiaye mi ne Ablaye Ndiaye Ngalgou mi gisuma ku ko gën a bëgg Tiwaawan gisuma ci Tiwaawan ku ko gën a bëgg Tiwaawan nee na gisuma ku gën a sincère Ablaye Ndiaye Ngalgou ma doon wax nag démb laay wax. te li ma doon wax démb laay waxaat tey. moom warul nee na yow gu waroo Seex Seydil Hadji Malick. naxu ko nee na naxoo Seydil Hadji Malick. trompé woo nee na trompé woo Seydil Hadji Malick. nee na ku bëgg Tiwaawan nga. ndax ñun dañuy liggéey. ndax ñun dañuy liggéey ay homme d'affaires lañ de. gisuñu benn intérêt bu gisuñu benn intérêt bu mu am. pour nekk maire pour nekk wala am poste wala am poste. ba tax ba tax mu fiy dépensé li toll nii mu fiy dépensé ci dëkk bi. nee ku bëgg dëkk rek. mooy def lu mel nii. Ablaye sa frère ne. ñun ñi bëgg Tiwaawan ñun ñi bëgg Tiwaawan ñoo lay wax Ablaye Ngangal a jërëjëf. ba pare nag di la ñaanal yàlla. yàlla na la yàlla defal tawféex. yàlla na la yàlla defal xéewal. dinaa la wax ngi nettali benn anecdote boo xam ne ni ñu day dégg mu koy wax rek. te xamuñu mooy. te xamuñu lu tax dëgg-dëgg mu koy wax. il y a trois ans ci nee na ñetti at suñu ginnaaw. boobu kër gi mi ngi ñu taxaw mi ngi doog a pare. comme Tivaouane ni mu bëree ñuy demlante. comme Tivaouane ni mu bëree ñuy demlante ak dikkalante. ñu def ay teraanga ba pare. ne ñu def ay teraanga ba pare. am kër ñi nga xam ne dañuy dem di yóbbu ay wax rek. ak ñi nga xam ne rek am koo xam ne ñooñu ñoom dañuy dem rek di yóbbu wax ak indi. nee fekk ma ma toog fii. mu ne waaw yow coono yi ngay tëj. mu ne ma waaw yow Aziz coono yi ngay tëj fii ci Tivaouane. di dimbali nit ñi. waroon nga fi bëgg dara. waroon nga fi bëgg dara nag. ma ko lan laa fi war a bëgg. mu ne ma xanaa li fi ñëpp bëgg. ma ko lan la fi ñëpp bëgg. mu ma xanaa nga jéem a nekk maire. wala député wala nangam. ma ko amul problème naa la tontu yàlla def benn journaliste ñëw fi nee na may def inter benn interview ak moom barke Seydil Hadji Malick nee na bi ma koy wax sama xol li ci nekkoon mooy wan ko ni ko man li sama frère yi bëgg ak li ma bëgg du lu benn dama doon bañ nit ñi yaakaar ne man ak Ablaye Ndiaye dafa am lu nekk suñu diggante moo taxoon ma ko bëgguma nekk maire bëgguma nekk député bëgguma nekk président bëgguma nekk leneen. te bi ma koy wax pour soutenir Abdoulaye Ndiaye Ngalgou rek moo taxoon ma koy wax pour nit ñi bañ a créer benn problème benn divergence sama diggante ak moom te wallaahi kii dañ ko war a jàppale nee na waxuma biir Tivaouane de lu génn sax Tivaouane waxuma sax Sénégal. mais Afrique waaye Afrique ak monde entier gépp dañ ko war a jàppale. ñëpp ko war a jàppale. ndax jafe na ci jeune. ndax jafe na ndaw. liggéey sa alal fële. di ko indi ci population bi. boo xam ni xam nga dañu néew doole. kon Ablaye sa frère nee na merci beaucoup. nee na ñu ngi lay ñaanal yàlla. yàlla na la na la yàlla suturaal. bi ci des nag ndénkaale la. ak anecdote. ak anecdote. nee na ñun li tax ñu bëgg Tiwaawan. yaakaar naa sama sœur ak frère bi ñun sama bi muy ñëw Tivaouane di gàmmu si daf doon loué. nee na ñun sama papa bi mu daan ñëw Tivaouane di gàmmu da daan loué. kër fii rey ñaari fii rey ñaari nag pour ñu dal fi. yóbbu ay nagam ci sëriñ bi yóbbu ay nagam ci sëriñ bi. continuer di loué continuer di loué. sama papa di ko def sama papa di kër Tivaouane ñun ñu ñëw di fa dal ñun ñëw di fa dal. ñun bi ñuy ñëw di dal ñun bi ñuy ñëw di dal si Tivaouane. amuñu woon néeg amuñu woon néeg. sama kër papa sama kër papa. buñ daan sol yére ci ginnaaw oto bi ci ginnaaw oto bi la ñuy dem la ñuy dem sol fa suñu ay yére di ko def mu digg ñuy dal sama kër terrasse papa mu digg ñuy dal ci kaw terrasse sama papa wala ci kaw def fa ay zeng def fa ay zeng def fa bâche def fa bâche di fa dal ba yàlla dimbali ñu ñu tuuti ñu am benn terrain ñu am benn terrain tabax ko tabax ko dëkk fa dëkk fa mu nekk terrasse mu nekk terrasse te taxul ñu dellu ginnaaw te taxul ñu dellu de déwén sa déwén sa ñu yokk ko étage ñu yokkal ko étage taxul ñu dellu ginnaaw waaye nag ñu taxaw nag xalaat nag waaw mais ñun ñi ngi investir Tivaouane te gisuñu ci ñun benn arrière wala benn mbir boo xam ñi ngi dellu ginnaaw ne ñu ne nag ñun ñi ngi investir boobu ba léegi di tabax di yokk te gisuñu ci ñun benn dellu ginnaaw ci lañ doog a xam ne nag Seydi Hadj Malick mooy ci lañ doog a xam ne nag secret bi mooy Cheikh Seydi Hadj Malick wallaahi wallaahi jëfal Seydi Hadj Malick jëfal Seydi Hadj Malick man de gisuma ci dellu ginnaaw jëfal Seydi Hadj Malick jëfal Seydi Hadj Malick amul daray amul daray arrière fii ku fi commencé pantere ne fii ku fi commencé pantere immeuble nga jëm Seydi Hadj Malick rek moo mën lool. kon wax dëgg yàlla kon wax dëgg yàlla. bëgguma sax tudd fa ñu jógee. bëgguma sax waaw tudd fa ñu jógee ba ak si fii. mais li ñu Seydi Hadji waaye li ñu Seex Seydi Hadji Malick defal. ci ndaw ci ndaw. mënuñu ludul mënuñu ludul. di ko delloo di ko delloo. ci taalibe ci taalibe bi ak ganam yi ak ganam yi yi nekk fii ci Tiwaawan. ñun loolee la ñu gëm. li ñuy wax ni bu ñu laajoon suñu bakkan. li ñuy wax ni Seex Seydi Hadji Malick bu ñu laajoon suñu bakkan yii ñu jox ko. kon dërëm dërëm yii ñu nañu ko delloo ci taalibeem bi nee na ak ganam yi rek am kilifa nangoo liggéey te sax ci tariixa bi rek yàlla nañu ko yàlla boole defal yàlla nañu ko yàlla defal ñun daal natt nañ Seydil Xaaji Malik ba xam li mu saf te dootuñu bàyyeeti Seydil Xaaji Malik insha allahu taala te yàlla nañu ko yàlla boole defal maa ngi jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp Ablaye daal Ablaye daal. mbaax du weesu mbaax mbaax du weesu mbaax. teraanga yii nga fi teraanga yii nga fi indi. wallahi da ngaa wallahi da ngaa baax rek. ndax vraiment ndax vraiment. man de nit musuma ko defal man de nit musuma defal lii ci Tivaouane. du Dakar du Dakar du Tivaouane sax laay wax. kon Aziz nee na Ablaye yàlla na la yàlla fay. yàlla na la yàlla sàmm nee na yàlla na la yàlla sàmm. yàlla na la yàlla suturaal yàlla na la yàlla suturaal. yàlla na la yàlla yokk yàlla na la yàlla yokk. yàlla na la yàlla dëgëral nee na yaa ngi mbooloo mi nga àndal yëpp vraiment ñun kontaan ñun daal dëgg dëgg dëgg Ablaye kontaan nañu ñu amoon lu gën lii lu ëpp doole jërëjëf dees la ko wax tey moom wax naa sax tey moom wax naa sax ba xaabaabal waaye kontaan rek di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Abdoul Aziz sëñ Abdoul dañoo bëgg nag tey nga ñëw tëje ko ñaanal ñu nag ñaan nag xaas ndax vraiment yaakaar naa ne lii moo doon mission wu Cheikh Seydil Hadj Mari fere ba ay njabootam mbooloo di benn ñëpp daje di yëkkateendoo di dóorandoo di tegandoo wax dëgg yàlla yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Seydi Hadji Malick kontaan nañ lool ñi fi daje ñëpp kontaan nañ ñoom yàlla na leen yàlla fay ne du ñu lim de bu ñu limee dañu dañ dul matal te ñëpp ay mbokk lanu wallaahi kontaan nañ lool yàlla na yàlla fay leen Mawlaay wax ji